salaamaaleykum salaamaaleykum sama gars moom lañ ko doon ñaanal suñ borom may la ko ko alhamdulilah Ama Baldé alhamdulilah alhamdulilah la confiance revient confiance bi nag ñim ñëwaatee mooy Ama Baldé bu jàpp Gris Bordeaux duma ko confiance bi ñëwaat na Ama Baldé bu jàpp Gris Bordeaux duma ko alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah combat bii sama xel dalu ci woon benn yoon waaw sama xel dalu ci woon benn benn benn benn benn benn benn yoon wallahi walazim combat bii alhamdulilah Ama Baldé yëngu ci bëre sax duma Gris Bordeaux duma Gris Bordeaux alhamdulilah alhamdulilah Ama Baldé félicitations félicitations Ama Baldé félicitations encore entraînement bi yokku ko bul xaaraat nan doo jël combat c'est le moment yokkal entraînement bi jëlaatal beneen combat tegaat ko ci yaramul lamb ji la yaramu mbër mi moo war a ñibbisi ci lamb ji mbaame ji moo war a ñëwaat ci lamb ji Ama Baldé alhamdulilah alhamdulilah Ama Baldé alhamdulilah Ama Baldé alhamdulilah félicitations mon fils félicitations mon frère félicitations alhamdulilah musuma yëgee combat nii buy métti si sama xol may gëmm a poussé man mi daal xeex sa daaw ma dal wuu alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah waaye nag sama gaay mbër yi gën a ñàkk ci mbëri Sénégal yëpp. mbër yi nga xam ne nii ñoo gën a nooy chocolat ak banaana mbër yi gën a nooy chocolat ak banaana mooy ñaari mbër yi mbër yi gën a nooy chocolat ak banaana laa leen wax mbër yi gën a nooy chocolat ak banaana mooy guy gi ak zos <laughs> guy gi ak zos ba guy gi billahi duma ko xam te walla leen du ma waxantu guy gi Zoss ñaari ñoo ñàkk jom ñàkk fulla ñàkk fayda guy gi moom mi ngi simmee bu mel ni bébé buñ kuus xale tànka bi ndaw li am ay yéen ñëw lekk nday million gars yi yee bandi bandilu yow guy gi waxoon naa la ne woon naa la yow mënoo am aada face face à face nga ñëw toog di ko waa sippi waa géejawaay foo ko teg foo teg léegi bu paree na waa géejawaay ñoo ko daan <laughs> guy kenn daanu la booy musculation kese du entraînement defar kaw moom nit ñi kaw bi sax des na nga def nga ñëw kuusu sa kuus bu jaune nga mel ne bébé uul Zos <laughs> Zos moom man moo la ko Zos bugguma ko analyser day maanaam Zos du mbër xam <laughs> nga la Zos du mbër wax naa leen ko raay bu nelaw laa koy wax léegi raay bu nelaw man man man xam nga laa yërëm ay ñoom giro ay ñoom giro ah, ay ñoom ñang ay ñoom dafa am mbër ànd ak gaay bi ci ginnaaw gaay bi ko mu nelaw waaw dajale waatal say booy nag di ma tëkkooti am maa la koy wax mais est-ce que xam ngeen ne làmb liis njaago zos man maa ko bëree ba mu jeex làmb liis njaago zos man Bakary maa ko bëree ba mu jeex Souleymane bu fi newee ñëwal ñu wax Souleymane docteur boo fi nekkee dama laa yónnee vocal yónnee vocal ki nga xam ne ni moom mooy Alioune Gueye le manager bi nga xam ne nii moom moo yor liis liis nekk ci digg géew bi ma ne ko Alioune Gueye mu ne ma ma ne ko hey waxal mu dal na calmé wu bu mu dépensé énergie carrément ba pare na ko la toog ci tànkam manteau bi bu mu téen na ko wàcce fu mu laalee saawaay saawaay xëm vocal yaa ngi fi nag laay wax man avant lamb moo tax ma naan la Zoss fais très attention mon cher dafa yomb dajale say booyu kër ñu toog wër la ñu naan coach Bakary nangam nangam booy fais très attention dama la koy waxaat sama gaay mbir yi gën a ñàkk Sénégal mooy sos ak guy gi guy gi moom béy bi ko rey béy bi la béy guy sa tànk yi béy bi béy bi jaar de béy la moom béy bi mooy béy bi kenn du béy bi kenn du béy <laughs> ay xaaral yow nag waaye xaaral yow nag eh, kenn du béy bi waa ngi sëriñ te waa non mais kenn du béy bi béy bi béy bi de ah maa ngi soog comprendre lu tax woon Ada Fass daan guy musuma woon a bett Ada Fass daan guy gi maa ngi wax naa leen état physique bu Ada Fass bi c' est bon c' est bon da ngay entraîner selon ton adversaire ni mu mel <laughs> non non c' est fou ah, Ama Baldé ñaan yi wuyu si na la de ñaan ni moom ñëw na wax dëgg yàlla xaw ma ku la ñaanal combat bi waaye ñaanal na la ak Serigne Touba ah sama doom nday waaye nag yokkal entraînement yi Ama yokkal entraînement yi wëratoo ba jëlaatal combat teg ko ci albuda bu leen ko bàyyi mu dem ama joxal leen ko avance hmm. c'est-à-dire li gën a metti mooy jos fii lay yor micro bi naan waaye non ma booy bii de ma lay manque de respect yow man ngay manque de respect yow yow xaala yow xoola yow la nga xam ne yow man fii maa fi daan alam daar <laughs> alam daar aram daara xam na suuri nañ ko bu yàgg ay sàpp ay aram daara ay sàpp yi non mais non mais ah papa booy jinne papa nag dama gaar nga demee xaaral xaaral xaaral bañ a wax dara ci yow sax parce waay nga mais xam nga li moo tax duñ juboo Papa yow li moo tax duñ juboo man dama lay tagal li ma lay tagal ngay dem topp waa géej waaye ñoo xam ne defal lii nga dem def leneen bu ma woote nag bu ma woote dama wax naa ma ne ma coach combat bi nangam na leer Liss Ndiago yaa fa yaa ko fa am waaw yaa ko fa am <laughs> maaj maaj maaj maaj kay maa ngi jégul maaj maaj moom maaj maaj jafe di maam yëpp yaa ma ko jox wax donc defet yi ma am ci làmb ji yëpp yaa ma ko jox ba bëggee dégg dëgg waaw tey doo mës dem nag bëre loo xam ne man moom laa moom laa la sant yow toujours da ngay dem bëre loo xam ne xaw koy xalaatee xaw ma kan moo la koy wax mais li ngay bëri man yabulu ma wax dëgg yàlla bu ñu waxantee dëgg ma wax dëgg rek bëri <laughs> bëri bëri yee bëri yëpp man maa la yebal bëri loolu ndax man samay vocal laa yor ak samay ah. <laughs> tey rek ngeen dee abaa yébi la wene dégg tayegante amaa yow mii dafay dégg Ama Gris Bordeaux Gris Bordeaux nag onze victoire onze défaite donc Gris ndigal ndigal tey ndigal tey du may ndigal du may ndey kenn jàmm tey tey ndigal du may kenn jàmm barke Serigne Touba ndigal moo du may kenn jàmm tey ndigal ba xam naa ne bu paree moom sama copain ndigal du may kenn jàmm non non <coughs> gars yi aka ñoo xam ne ñuy coobee xaalis aka ñu koo xam dañuy eh, yow de caq-caq lu ñuy laal ci ginnaaw wane nii xam laal musculation bi nii genre guy gi ah li laay waxat mais almourage journée bi neex na journée bi neex na yéex na waaye neex na gars yi doon wax Ada lim li indi ci ay bagage Ada day làmb rek yéen kenn xamul lu ngeen bëgg ndayam Ada day làmb ba nañ ko mu làmb xale la bu ñu ko daggee moo xam waaye xale la dañ ko bàyyi mu làmb day làmb ah guy gi yow moom xam naa ne foo ko jënd ay taxi jëndal ay taxi jënd ay taxi guy gi jëndal rek ay taxi kese li ñu jox sa reliquat jënd ci ay taxi liggéey amul leneen amul leneen <laughs> guy gi moom la jëndi tax gars yi dañ xool yaa ngi laaj de <laughs> yéen ngi mer ne xaaral ma ñëw bologe te ndey yi ñoo am neex damay bologe seen ndey amul problème vite fait lay doon <laughs> gars yaa ngi mer te pourtant avant avant guy gi aar fa dama leen defal benn côté pensée psychologique boo xam ne dama leen koo tegaloon ne la quelqu'un boo xam ne nii gagnant la yàgg naa leen koo wax. pareegul guy gi pareegul guy gi parewul pour daan Ada Fass ba ma koy wax du léegi damaa taxaw ne leen guy gi mii parewul pour daan Ada Fass wax naa leen ko guy gi parewul pour daan Ada Fass def ci pensée psychologie bu gën a profond gars yi taxaw naan non booy bi naa booy bi dafa reew booy non li ma leen wax dëgg la guy gi musul pare pour daan Ada Fass nañ ko jox baari baari waaw pareegul pare pareegul pour daan Ada Fass loolooy wax ji pareegul waxoon naa ko guy gi musto pare mustoon na pare guy gi mustoon pare pour daan Ada Fass bu ñu waxoon te dëgg te yàlla tax loolu dama leen ko yàgg a wax du léegi Zoss bañ ma laajee dama leen Zoss moom loolu du combat ah ci yoon Zoss ba woon moo mën ci Liss Ndiago ci côté yëpp waaye Zoss bi ñu mujjee gis nii ñëw lijjanti xaalis ak takkal xanaa sax booy takkal takkal takkal ba yenn niveau yi nga bàyyi nday takkal yi ñëwaat ci làmb xam ne da ngaa war a bokk ci làmb nga xool ñi nga daan ah lu laay wax yow guy ñëw si waaye tag guy gi guy gi daa yemaata de bu ma muy xëcc advance naa ko ñëwal ñëwal ñëwal xëcc sa xëcc yu metti yooyu yëpp naka yow doo songuwaat lu laay wax wóor na yàlla ñaan naa leen ko yéen yi bu leen tëggalati Zos ak guy gi jàpp leen ci bu leen tëggalati Zos ak guy gi sa sert à xaalis bi nga leen di fay ay 30 millions ay 10 millions ak 15 millions nañ ko fay booy yii nii booy yi ñëw bëre quoi parce que nag au moins sax état de forme physique bu baax nga ñëw nga indi ko bu ñu waxantee dëgg rek nañ bàyyi affaire tour yooyu noonu non kii defoon na fi lii on s'en fout nañ jël booy yi yor seen licence ñu investir ci booy yooyu noonu làmb am beneen facette waaye ñoo xam ne ni ñàkk nañ nday fulla ñàkk nday fayda chaque combat bu ñu ñëwee juutu chaque combat bu ñëwee juutu chaque combat ñëwee juutu non aada kenn du aada aada rek <laughs> pourtant danaa leen de neenaa leen mu xam parce que parti de maanaam leen bu leen jaawale viwu Ada Fass d'extérieur ak làmbu Ada Fass c'est deux choses différentes booy bi mun na koo canaliser te mi ngi koy def mi ngi koy wane saa su ne nag bu nit génn génnee ne aada nangam nangam nangam mën naa canaliser vue extérieure ada ak vue sportive aada c'est diamétralement différent booy bi chaque jour bu ñëwee confirmer leen loolu ah non <laughs> non sérieusement dañu waxante dëgg ah on doit zapper guy gi aada face investir ci booy ndaw yi wóor man fi mu toll nii yow ngiro est-ce que tey ngiro séance dana nelaw ah gars yi est-ce nelaw ay ñoom ñang baalo ay ñoom tafa mbër monsieur le ministre Tafa Mbër monsieur le ministre Tafa Mbër monsieur le ministre est-ce que ñoom danañ nelaw tey gàcce gi leen Zos indil waa kër Zos nan la ñuy nelawee waa kër Zos nan la ñuy nelawee ah naan yow ni la Siteu daanee noonu la booy bi daanee Siteu ni mu la def yow Zos li la Siteu def noonu la booy bi def te waa jàmm gën ñoo la ko def. <laughs> kaw nag xam naa luy kaw de man mos naa jël kaw. kawal nii des fois ñu kawal nii ngay laaj sëñ Fallou sëñ Fallou du ñëw de sëñ Fallou ne moom <laughs> sëñ Fallou moom bu ko leeree na yaa ngi jaayee gi nii da ngay du ñëw de <laughs> sëñ Fallou rek <laughs> sëñ Fallou kay mooy borom nit ki tikk tekk yu nu yollu maanaam day fekk nga conscient ngay xool ba ñu ne tël croisé nga dem sëñ Fallou sëñ Fallou mi muy ñëwee yooyu yooyu foo ñu moytu ko guy gi kay du am sax ëmmatee guy bu bëreeg sax xajoo ëmmatee. xaju ëmatien yi sax soxla wuñ guy gi guy boo ko baaloon tafaa baari baari mu daan ni rek booy baari baari mu daan ko barke Serigne Touba boo ko boole booy baari baari mu daan ko barke Serigne Touba leer naa leen wax i guy gi doos ñoo newutul ci tous bëgg ñoo solo ak lamiñ bu rëy buñ génnee jaxase waa koñ bi kenn jàppale wu ñëw kenn lii wu ñëw yéen ñaata yoon ngeen fi lekk nday ay million mosoo leen jàppale boo yi xiif nekk seen koñ ñaata yoon ngeen fi encaissé ay million moom ñoo xam ne nii seen kër taal taaluñu ceeb yow guy gi ak zos ci jàppale woo leen tey ngeen bu ngeen amee combat rek bu komba bi diisee rek kenn jàppale wuñu ba nga njëkkee génn yow guy gi di wax naan combat bi dafa yàgg laa xam na ne yow pare woo ba nga toogee di wax ay nas ni ma jàpp di jooy laa xam ne yow pare woo waxoon naa leen ko fi yàggut vidéo yaa ngi fi vidéo yaa ngi waaw vidéo yaa ngi fi nag yow majji majji neexoo jàppale majji majji neexoo jàppale yow majji majji yow mënoo nekk yow biir géejawaay yow nga ne yow tëdd fu mu jotee yow yaay tëdd majji majji loolu noo ko ma ne majji majji man am na yoo xam ne d'accord ma ci bu bu ma la conseillé jëlal li ma la conseillé nga dem bëree ko mais du ngeen euh, conseil te du ngeen ko bëree ça sert à rien ça sert à rien ça sert à rien coach lu ma lay bëri lan soo ñëwee bëri gi yëpp nga teg ma gàcc gi yëpp yaa ma koy teg ku ne di ma teg se booy sa majji majji mi sa majji majji mi sa majji majji mi sama majji majji mi xel mi daa majji wut ci li koy coach Bakary di wax li ma lay tagal boo ko bëree woon daan waa ji mais defoo ko defoo ko defoo ko gàcce yi ma am ci làmb yëpp yaa ma ko teg majji majji yaa ah. na leer yaa ma ko teg amel nga ma àq lis Ndiago dafa soxla ay jàppale Liss Ndiago ku ko jàppale barki salaatul alal nabi booy booy billaay wallaay wa taalaay booy luñ ko mën a yëngal Liss li manqué woon la amaat muy confiance waaw confiance waaye Zoss raay mu nelaw tuuti Zoss Zoss man jos xaw ma ku mu yem man jos laa xamul ku mu yem rek yi daal micro moom ay na ci bu yoree micro bi ay naa ma xoolal booy alam daar maa ko daal isaa puy maa ko daal nii raay mu ne la jos bu leen ko woowatee jos woow leen ko raay mu ne la raay mu ne la wax dëgg yàlla koo xam ne du rus jos dafa mel du rus amul gàtt adduna honneur dafa baax du xaalis kese am sa honneur am sa ngor am sa dignité defar sa palmarès mu naaj du xaalis kese booy bu jug na la tuy <laughs> yàlla may yow waaw maa ngi lay respecté danga yow la gis daa def moo tax maa ngi lay respecté lii mooy dugg sa kër ren di ñëpp leneen waaw bu fi kenn mere na naa ma Bakary li ngay wax nangam moo bëree nii ñu ñuusee ko nii mu daanoo nii yaa ngi comprendre Bakary bëri wutoon de moom moo doon bëri joxe kanamam ñu ne ko tuñ mu këpp kon bu ma kenn wax ne Bakary non li ngay def Bakary nangam bu leen ma ko fi tegal de. Jos du ruus daa amul jom te fii laa lay yedd barki démb ne la xoolatal sa carrière ñi nga daan ñëpp ñi nga bëreel ñëpp rag tafaatin yooyu yëpp Jos boobu anam ah. Garga moo ëpp kii. du ma bëgg sax wax ci ay mag rek wax dëgg yàlla parce que kenn ku nekk ak ñu la yàlla di bindee waaye Zoss moom ruus moom daa mu góob ruus moo xëy mu góob moom pour moom moom moom adduna moom lépp ay teqal la teg di ay ñeeñeeñeeñee sa affaire théâtre yooyu nga war a baax yaa guy gee yem guy gi tamit même chose waaw yaa guy gee yem waaw Gris Bordeaux yow it war ngaa arrêté onze victoire onze défaite moom wax dëgg yàlla nag waa Fass dañoo war a wax Gris jëlal pause dañu wante dëgg onze victoire onze défaite égal zéro ah bàyyi leen seen caaxaan di waay Gris Bordeaux dóor yi nga daan dóor tey Ama da laa duma ay mu li may wan nag ay su waa ndox amutu fi jeex na tàkk promoteurs yi bàyyi leen cinquante millions soixante millions yi ngeen di tëgg jox leen ko booy ndaw yi yeneen faasu làmb génnaat waaw yow saa boo génnee représenté Fass yow Gris Bordeaux rusloo waa Fass saa boo génnee représenté Fass Rousseau waa Fass ñiy toog ci plateau yi di ci jàpp Bécaye di ci jàpp Tafa Gueye di ci jàpp ku ne di ci jàpp mais Gris daal moom amul jom daal ne moom bu ñëwee ci làmb moom dana daan moom daal dana xeex moom dana ko assuré moom xeex bi moom dana ko assuré bii da ngaa xeex ñu dumal yow it c'est du n'importe quoi Gris nekkal nit waay ah nekkal nit Gris respecté woo sa respecté woo Fass Gris Gris joxoo cër Fass joxoo cër supporters yi nga xam ne ñu ngi lay topp ci sa ginnaaw Gris tout temps fu ngay demee Gris respecté woo Maodo sax bi nga nekkal yow mu la doon kilifa ñu jël la fan la nga doon troisième tigre de Fass troisième tigre de Fass boo xam ne nii daal moom day ñëw rek assuré na dana xeex après ñu daan mais c'est du n'importe quoi c'est du n'importe quoi nañ ko wax te dee ñu toog ci plateau yi ñoo lay jàppale. ñoo lay jàppale ñoo ciy wax mais normalement Gris danga ngaa war a tuut a bëre da war a teg sa ngem waa Fass défaite bu ñu am Gris lañ ko yóbbi défaite yi gën a metti nag Gris moo leen koy teg défaite yi gën a metti Gris moo leen koy teg dafa mujjee metti dafa mujjee metti c'est quoi ça ah dafa metti dafa metti daa metti ci xol dafa metti ci xol waaw dafa met du yoon giri boo ko boolee Liss Ndiago sax Liss yii mooy nag Liss Ndiago léegi raay mu nelaw lay def de <laughs> ah Pape Pape Fall mën ngaa bañ a nekk ak man de waaye man sama xalaat laay wax de wala xam nga loolu sama xalaat rek laay wax na la léegi yéen mën ngeen xalaat rek leneen nag lu ngeen wax baax na mais man li ma xalaat laay wax rek te moom kenn mënu koo changer waaye bu la ñuy sonal naan Gris n'a pas mérité mba jàmbaar mënoo tegale ay défaite défaite défaite défaite nga ñëw am combat final combat boo xam ne nii booy bi ngay bëreel parewul Ama Baldé bi ngay bëreel parewul du Ama ba woon Ama bi Ama buy xaw a jàppaat confiance jugu ci défaite bu metti loo nga ñëw am problème nga naan ma ay Gris waaye ay Gris n'a pas démérité démérité wu la yow boo jugee yow dangaa box ba naaw boo ñëwee ne da ngay box nga ñëw ñu ñuus la ci box bon ba leen seen caaxaan yi waay ba seen caaxaan ak seen xol yi ngeen di dëfal lii sport la na leer nañ wax dëgg gi fii ci vidéo la lépp di jaar vidéo lañ ko gisee avant ñu koy wax te li ma gis xam naa ne moom ngeen seetaan giri buñ dóor gisatul kese waaw loolu laay wax non Ama amul mérite dama la koy waxaat Ama amul mérite man sport lay wax amaa laa faraloon Ama laa bëgg mu daan kuy Ama di bëreel Ama laa bëgg mu daan ba mu des Reug dama koy wax mu leer naañ mais dama lay wax ne la dama lay wax ne la à cent Ama amul mérite ci benn côté am na ci mérite mooy Gris Bordeaux bi ñu yaakaaroon ne moo yor xeex bi foofu la ko Ama diminuer dañu waxante dëgg bu ne Ama da ko jàpp daan ko ñu waaw Ama am na mérite ñëw na bëri daan amaa da koo raag raag bi giri di woote ci la ko amaa fekk si raagante ak moom ba pare fatt ko téye ko fatt ko fatt ko ba gaañ ngeen amaa amul mérite amaa am na foofu mérite bu rëy sax giri bi fi fëgg ay ñoom Balla Gaye ak ay ñoom ñi ñu daw ak yooyu giri boobu loolu la amaa faj lii daloon Malick Niang moo dal Gris Bordeaux loolooy wax ji dañ ko nangu amaa am na mérite am na mérite waaw lijjanti na combat am lijjanti na combat ji noonu la da koy lijjanti làmb la Ama waratoon na ñëw perte man damaa tiitoon du ma leen ko nëbb Ama waratoon na ñëw perte làmb ji bu pertoon làmb ji Ama fu mu jëm te billaa wala cara ba di combat bi sifflé jusqu'à présent la ma doon duute te bi mu jàppante gris mënu koo daan rek foofu laa gënoon a jàppante bi te daanu ko foofu laa gënoon a sax pour wax leen ne leen c'est pas normal amaa bu yeggee ci sa ndigg normalement da laa war a tër ci xale da la war a tër waaw da ko war a tër amaa bu yegg ci ndigg ak doole war a tër ñaari tànk yi di coos da ko war a tër mais moo tax la amaa même bi combat bi dem billaay wallaay wataal bi combat bi taxawee léegi musumaa am yaakaar ci Ama Baldé jàpp Gris Bordeaux daan ko billaay wallaay taala te dama ko wax sama live yëpp dama ko wax ci sama live yëpp carrément nëbbu ma ko bu ñu waxee ma ne Ama laa faral mais dangay xool ni combat bi jeexee sama wax mooy ñëwaat daanu ko daanu ko de jàpp ko ne ko tël daan ko te bi ma la wax ne la Gris Bordeaux pour nga daan ko problème la foo nga raag ak moom raag boobu moo indi gaañu gaañu Gris Bordeaux kon Gris Bordeaux Ama da koo ñuus ci kaw xeexam loolu lay wax ji dañ ko wax te dee c'est ça nañ ko wax te dee c'est ça puukaree ak seen mascara yi ngeen di teg donc Ama il a mérité cette victoire là c'est une confiance de plus yeneen mbër yi mu war a dajalaat yëpp danañ xam ne ni carrément que Ama day raag nag waaw Pape Cheikh yow continuer su waxee ngay dindi li may wax bu yàggee boloka laa lay def continuer rek nee naa la maay live sama live maay wax sama live bàyyi ma wax li may wax bu lu tollee noonu taalal sa live yaa ngi raa man li may wax laay wax waaw na leer na leer ba leen seen caaxaan li ma dox man du mu jubóog yéen da ngeen fekk nit tàllaay fam di def analyse am di wax li mu xalaat yéen ngeen bëgg man ma dugg ci seen xel yi di wax yéen li ngeen bëgg du ma géwalu kenn na leer na leer leer rek leer laa leen wax sama live laa taal waxuma kenn mu toog fi waxuma kenn mu seetaan maay taal sama live di wax li ma xam ci samay xel di ko wax muy leer kon nay leer li may wax man maa ko wax man la engage waaw man la engage man rek la engagé li may wax waaw luñ tollee noonu taal leen seen live taal leen ko taal leen ngeen wax ndax dinañ leen déglu daf leen ko balaa ngeen nekk suuf di bind ay n'importe quoi yaa ngi bind ma lay ma lay warmaal nii tuuti di continuer di wax ngay band band bi waaw di Pape Cheikh yow it ah yow yow su ma yow Pape Cheikh yow xam yow yow ngay déconné sax yow yaa ngi déconné waaw yaa ngi déconné non kenn dooñu ma Pape Cheikh xam nga kii la rek dama koy wax rek na ko li muy wax wax na ne Gris amul mérite ma tontu ko foofu mu continuer di bind su ma yow loo yaakaar yow laa laay fa <laughs> kañ dem pornographie à la place bu ma sanoon <laughs> kii Modou ñu ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay bu baax. bu ngeen bëggee jàpp daal mbër yi gën a ñàkk jom Sénégal ñaari ñii la guy gi Arafa euh, guy gi kii guy gi sos guy gi sos daal muy mbër yi gën a ñàkk jom ci Sénégal <laughs> barke Serigne Touba mbër yi gën a ñàkk palte plat mbër yoo xam ne nii sax poubelle sax moo leen tane jos guy gi waaw ah. jos guy gi ñaari yoon man ñaari yoon jaaxal na ñàkk jom genn ak peeru ñàkk jom joo xam ne bërëb bi ngeen fi amoon bëre bi ngeen fi daan bëre anam fu mu dugg fan la dugg waaye nag c'est normal ngeen jàppee turu yu ndaw yi di ñappi-ñappi bu ngeen ñëwee dem ci saal yi musculé ñëw def nii gars yi naan non pare na nga si meeku ak sa couche bu soom <laughs> eh, eh, couche eh, couche couche benn sama doom ju jigéen ñi romb <laughs> couche sama doom jigéen ñi sax ak ëpp taal <laughs> ma ne ko sama doom ju jigéen ko ëpp taat waaye mu yiwaale taataam yiwaale taat yiwaale ki muy saw yow mooy boole dana lépp réer baxala béy bi béy bi béy bi béy bi béy bi béy eh, béy bi da yow it nag yow lu béy bi eh, béy bi yow béy bi lu dal guy gi rek yaa ko teg béy bi nag <laughs> béy bi maa ngi nuyu béy bi béy bi béy bi béy bi guy gi ñëw na amul fees amul taat guy gi amul taat amul kiwis amul mole <laughs> guy gi amul sax baaraamu tànk taxaw <laughs> yu guy gi naan kii guy guy lu muy bëre léegi <laughs> mais guy gi nag waa géej waaye war nañoo xoolaat war nañoo xoolaat ah comment il s'appelle encore waaye waaye doomi war a saar bi nas nas nas nag waaye yaakaar ne per gi nasoon daa dagg nas nas per gi dagg na nas per gi dagg na <laughs> wa naa la ko barki démb bi may def live dama gi bi parewul pour daan aara daan aara <laughs> nas fii depuis béy bi mi ngi ci kër gi daal béy bi béy bi tamit bi nag yaa am fulla béy bi noonu la béy bi béy bi da am fulla jëlal li nga moom day jëlal li nga moom tey béy bi ah béy bi non béy bi man gëm naa la béy bi barke Serigne Touba béy bi yow rek nii la amul ay jëkk ay jëkkëru laa am de ngaccal ngacc ko ngacc ko ba doon amati kàpp bu jëlee <laughs> wax ji ma <laughs> jox ma ndox jox ma ndox baby yeah, baby baby yeah, baby baby de kay kay kay kay bu kër yi Arafa tourne baaraam bi peese ko day xëcc ko wàccee bëgg loxo bi daal di guy gi daal guy gi daal aara bu dof dof la bu dugg sama tànk foofu ngay xam ne maa mën a bëri naa ko daan daan boo xam ne aara ci tànk yi ñaari ci tànk yi ñaari tànk yi collé danaa toog de déw pël presse na maa naan fi ma taxaw aada na ñëw aada bu ñëwee na jël tànk yi aada jël tànk yi <laughs> jël tànk yi ko ma ne non mais nag dafa mel ni béy bi aada na faraloon foofu parce que béy bi yow it waroon ne guy gi daa am combat <laughs> aada na jël tànk guy gi <laughs> guy gi daa ko kar tànk yi kar waaw ne ko guy daan kenn këriñ <coughs> non <coughs> attaqué Ablaye Diop xaas <laughs> waaw mbër amul ngor foofu nga xamee ni mbër amul ngor attaqué Ablaye Diop xaas ba pare naan Ada Fass tànk yaa ngi nii boo ci boo ci duggee boo xam ne ni bëri daa ne tànk yi bi nga Ada jëlee <laughs> ñaari tànk yi <laughs> hmm. non neex rek c'est que làmb làmb làmb dafa neex làmb <laughs> daa neex bëgg Zoss nag Zoss gën a dee Zoss naan Liss Ndiago yow man ngay naan manque de respect yow man ngay manque de respect yow <laughs> yow man ngay manque de respect <laughs> bu Ndiago bi ne ko dama lay dóor nga daal bu naa maa fi daan alam daar maa fi mu jëlee mu nelaw non non làmb neex na Zoss moom Zos Zos <laughs> waa xaaral ah rëy nday laa wax rek ngay wax rek ah rëy laa bi ñu nii Zos ay ñoom Fatma Dia wër ko Zos xotteeku la mën Zos lenn di entraînement newu ci lenn di entraînement Zos nekku <laughs> yow nga waaj contact ne yaa yéen a ngaa contact yow ñu dóoroo nga këpp <laughs> non non làmb ji dafa garaaw non guy gi sos kay bu ñu leen boolee ñoom nañ leen bàyyi ci ñoom nañ ñoom tëggi sabar guy gi sos yëpp nañ ñoom tëggi sabar fini bu la kenn tëggal bu ngeen xoolee sos cinq combats dernier sos yëpp toujours teqel teqel teqel teqel moo taxit am leen jàmm sama gars maa leen bëgg di leen ziar bu baax <laughs> Jos dafal maye ji deret xam nga yow <laughs> maye deret nga doon def campagne yu maye deret ma ne ko Jos campagne yu maye deret la doon def ah suñ Moussa Nawel waxoon na la nga bàyyi <laughs> nga bàyyi bëri suñ Moussa Nawel waxoon na la nga bàyyi bëri suñ Moussa Nawel waxoon na waaw ah, waaye Jos papa booy jinne loolu combat la sa papa mooy jinne loolu combat la majji majji Jos ak majji majji loolu combat la Jos relation internationale ay ay ay non non mais gars yi ñoo dee non mais làmb neex na mais alburax alburax alburax li ngeen def neex na quoi li boole mais bàyyi jaayee neex. ay Baye Ndiaye Baye Ndiaye gën a neex ñu Baye Ndiaye guy gi daa ñëw di wax ak moom ngay a tas <laughs> buuse ci lu guy mu taxaw ne moom du <laughs> bu jëloon màjj màjj sax màjj majj da koy daan est-ce que xam ngeen ne Papa Boy Djiné Zos rek la mën a daan <laughs> Papa mën a daan <coughs> mënul daan keneen ku dul Zoss Zoss rek la mën a daan Zoss <coughs> non mais sérieusement j'ai jamais vu ça dans ma vie non mais gis ngeen sama gars yi non làmb tey ji dafa neex jël avance du ngeen entraîné <laughs> waaye gis ngeen Zoss soo soo dee benn ginaar goo rend rek gis nga tuddee daa ma demee ci kaw la yow sa boobu baaxul daa bu tàppet ragal boo tax it avant nga koy dur avant coup bi dal sax sos xam na xam naa ne suuf suuf si moom ni nga koy nooyee daa non c'est fou quand même ah jaajëf am leen jàmm